yaa mbokk jullit yi mbokk talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàggul lool te ànd ak wér Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou xalifa Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul ak mboolem njabootuk Serigne Souhaïbou Mbacké ñoo am mbégte ak tawféex di fàttali di yëgle ak di woote màggaluk Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul gi nuy amal at mu nekk ci juróomeelu fanu weeru koor wi te Touba ren muy dëppook altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wala talaata ñaar fukki fan ak juróom weeru mars 2023 muy bésu fàttaliku ñaanu Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul bésub ñaanal ak màggal Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul muy bésub sant yàlla sant Serigne bi ñu di ko yëgal njabootu Serigne Touba gépp mbooleem ñi ñu bokkal maam maaram mbooleem cheikh yoonu murit mbooleem taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew mbooleem daayira yi ak fédération yi mbooleem këru diine yi ñu bokkal l'islam bi di ci woo mbooleem jullit yi ñuy sàkku ci mbooleem kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak daayira yi lu nu mën ci jàng alxuraanul karim xasida salaatu ala nabi ak istifaar ñu sellal def ko addee sëriñ bi programme bi bu nu xëyee ba tisbaar jàngum alxuraan ak xasida tisbaar ba takkusaan ñu amal ay waxtaan ci dund liggéey ak njàngaleem sëriñ bu Mbacké Xaadimu Rasuul bu nu sëlmalee takkusaan sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou waxtaan ak mbooloo mi ñaanal leen ñaanal réew mi